mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey sunu bind bu mujj ci suuratul anfaal ci ay 62 ci suñu borom di waxee ni wa in yuridu an yaxda'uuka alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk jullit yi ñu ngi yee san santaat suñu boroom mi ñu wërsëgal ñu daje ci néegam bi di fas yéene jàng ak téeréem di jaamu yàlla goo xam ni heure bu ci ab jullit nekkee war na ko yéene ndax la nga xam ni rasul sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci ngëneel yu bari doonte ne ni yonent boobu doon béggalaate bokk na lum doon béggalaate ñoo xam ni ëllëgi ëllëg yowmal qiyaama sunu beroom dana leen keral bokk na ca ñooñu wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid mooy ña nga xam ne seen xol mi ngi aju ci jàkka sallallahu alayhi wa sallam xamoon ne ni jullit ñi dana am ñu mën a jël seen tànk dem mais dana am ñoo xam ne mën nañu am ay ngànt falilahi alhamdu it ñooñu dox suñu digganteeg ñoom di leen ko jottali loolu it mbokk ak jaamu yàlla la goo xam ni yal na yàlla nangul leen la chaque tey ñi ngi jëfandikoo ay dars yu jóge ci cheikh Nasiruddin Albani wala Alxusaymin ak ñeneen ñu dul ñoom yal na yàlla yërëm leen te mus ñu toog ak ñoom ñooñu nga xam ne ñooy tuxalkat yooyu ñoo koy jël tasaare ko ci àdduna bi ba nit ñi di ci jëriñoo su ko defee it na doon ñii ñu nekkal ci jàkka ji muy Aboubacar Sarr mi fi teewal waa xam sa diine wala suñu mbokk Moustapha Ba bu deuxième vision teewal fi waa dégg diine ñoom ñëpp ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla nangul leen doonte ne xam ngeen réew mu mel ne Sénégal it li fi nekk ci ay rajo ko télévision kenn xamul nu mu toll mais dana jafe buñ ci mën a joxoñ ne kii kat dara yëkkatiwu ko lu dul alxuraan ak sunnay kese loo mel noonu nag am na mbokk yu koy jéem a taxawal lu ñuy tuddee islam média boo duggee ci internet bi da nga ko gis ñu nekk ca bopp ba bokk na ca sunu mbokk oustaz Omar Diallo ak imam Ismaïla Ndiaye bokk na lu ñu bëgg a jëkk a lancé muy islam TV bi nga xam ni dana mën a génne lii di programme l'islam ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala jàpp ci projet boobee ala kulli xaal ku ca bëgg a am ay ndimbalit boo duggee ci internet bi da nga xam fooy jaar ba loolee mën a sotti kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئة السبيل وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sunu boroom subhanahu wa taala mu ni yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéefér yi day wa in yuridu an yaxda'uuka su dee dañoo bëgg ci di la wor fa inna xasbaka allah ka nga xam ne moo la doy sukkandukaay mooy yàlla huwa alladi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin mooy ki la dooleele ci ndimbalam doolee la ci doolee la la ci julit ñi gëm wa allafa bayna qulubihim daa di boole diggante seeni xol law anfaqta ma fi l ardi jamia bu doon dangaa dépensé li nekk ci kaw suuf mboole seen maa allafta bayna qulubihim nekk woon mukk di mën a boole seeni xol walakin allah walakin allah allafa baynahum waaye yàlla day moo boole seen diggante innahu aziz mooy ki nga xam ne moo not lépp ci kàttanam ga waaye mooy xakim ki nga xam ne lu ni teg na ko fa mu war a tege yaa ayuha nabi ay yow yonent bi xasbuka allahu wa man ittabaaka min almuminin ki la doy mooy yàlla ki doy ñi julit ñi la gëmit mooy yàlla ay xasbuka allahu wa xasbu man ittabaaka min almuminin ya ayuha annabi ay yow yonent bi xarridi almuminina ala alqital xiirtalal julit ñi ci xeex in yakun minkum ishruuna sabiruun su ngeen amee ci seen biir ñaar fukk yoo xam ne dañoo muñ yaglibu miatay yaglibu miatayn daan mën a not ñaari téeméer te yéeféer ya wa in yakun minkum miatun bu amee ci yéen téeméer yaglibu alfan min alladina kafaru daan mën a not junni te yéeféer ya bi annahum qawmun la yafqahun ndax ñoom xeet lañ boo xam ne amuñu ak dégg ay comprendre ñu dara mi ngi noonu mbokk bi ñu fi mujjee dajee àllarba bi passé suñu boroom subhanahu wa taala def na yonent yàlla bi yéeféer yi buñ ñëwee ne dañoo bëgg a jàmmoo ak yow jéngal jëm ci jàmmoo googu ca loolu mooy heure bu ñu demee ba lislaam gis ni ci jàmmoo gi kat ca la maslaha lislaam ëppee ak jullit ñi su boobaa ngallaway nañ maintenir jàmmoo googu ci misaal yooyu lañ doon wax bay wax ne tey yàlla nottu na lu bari ci jullit ñi ak seeni réew ndax am nañ kattan gu mën a dal ci kaw yéeféer yi amuñu ko yàlla may ñu ñu jàmmoo ak ñoom ba tey nodd yaa ngay jëb ca États-Unis di jëb ca Londres di jëb ca Moscou di jëb ca fu nekk loole lu ñu war a maintenir la jëm ci profito wante ne ni ci dars bi passé ñi ngi doon wax turki yi tabax ca Amérique benn jàkkab cent milliards de dollars mais cent milliards de francs la mi ngi noonu ala kulli xaal loolu la suñu borom waxoon borom bi nag ni su dee ne ñoom dañoo ñëw bëgg laa wor ci ni kat nañu siñante jàmm ba pare pour bëgg a jekku ëllëg ñu dal sa kaw xamal ne yow ki la doy mooy yàlla te it xamal ni yàlla moomu moo la jàppale ci ndimbalam jàppale la ci jullit ñi te mbokk suñu borom subhanahu wa taala la shakka ne moom mooy borom ndimbal ndimbal yooyu nag dana doon koo xam ne moo koy jaarale fu ko neex bokk na ci loolu mooy mu jël jullit ñi boole leen ak yonent yàlla bi ñu daal di koy dimbali yàlla yu ñu ne ay yonent kenn gëmu leen loolu mooy la ko soob amma suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla boole ko ak jullit ñi borom bi subhanahu wa taala ni moo ko def gannaaw ba moo boole xoolu jullit ñooñu ànd ak moom di ko jàppale ca yow day boo jëloon mboolem trésor yi nekk ci kaw suuf bëgg leen a boole mënoo fexe ba boole ci seeni xol waaye yàlla moo boole seeni xol mbokk bokk na ci loolu yàlla moo boole diggante waa muhaajiruun ñu jóge woon makka ak waa ansaar ñoo accueillir leen def leen ay doomi ndey waaye lu gën a kawe loolu rasul sallallahu alayhi wasallam bi muy ñëw madina dafa fekk ñaari giiri arab benn bi mi ngi tudd awus bi ci des tudd xasraj ñu xeexoon xeex yu metti ca jahiliya loolee ñu koy garde seen biir di ko fàttali ko ëpp téeméeri at ñu nekk ay noono bi lislaam ñëwee ñu bokk tuub dugg ci lislaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam fàtteloo leen aws ak xasraj ñu tudde leen ansoor mooy ñu jàppale diine ci ñoom ñépp ñu wëlbate ko bokk doomu doon ay doomi ndey loolu mi ngi noonu di xéewal goo xam ne yàlla moo ko def borom boobu nag mu ne mooy al aziz waaye mbokk lii lum lay jàngal mooy nekkati jullit ñi nekkoon benn jullit ñi àndoon seen xol nekk benn moo gën ñu yoroon trésor yi nekk ci kaw suuf yépp am déet ndax suñu borom nee na su ma la joxoon trésor yi suuf xéewal gi mënoo ko def loolu it moo ko xamal ne dara gënul woon nekk kàttanu jullit ñi ñu nekkoon benn lan mooy tax ñu nekk benn mënuñoo nekk benn ci bokkuñu lu ñu gëm mbokk jullit ñi li leen mën a boole mooy gëmuñu lu dul yàlla gëmuñu lu dul yonent yàlla gëmuñu lu dul alquran ak sunna amma bu dee kii danaan barke sëñ caam kenn barke sëñ sekk kenn barke sëñ njaay nan la ñuy booloo déedéet waaye it xamal ne yow julit bokk na lu lay jël jural ngërëmal yàlla mooy nga bëgg say mbokk julit rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na du ngeen dugg àjjana mukk xanaa lu dul ne da ngeen a gëm seen gëm du mën a mat mukk xanaa lu dul da ngeen bëggante kaay ma wax leen lu leen di may bëggante bari leen di leen nuyoonte seen biir loolu day jur mbëggeelu gi yàlla rasul sallallahu alayhi wasallam mu ne suñu borom yàlla nee na wajabat mahabbati lil mutahabbiina fiya wal mutazawirina fiya wal mutajaarisina fiya wal mutabazzilina fiya man day sama cofeel danaa ko jagleel ñépp ñu bëggante ca fekk maa tax ñu bëggante ñépp ñuy toogandoo ca fekk man yàlla rekk a tax ñu ànd ci seen toogaay boobu yal na yàlla boole ci suñu jotaay bi bokk na ci it ñépp ñoo xam ne dañuy sol seen dal di ziyaarante ca yàlla rekk a tax ak ñépp ñoo xam ne dañuy dimbalante ca yàlla rekk moo tax mën nañu mel ni léegi dinaa leen bëgg lu tax mooy loolu ci xéewal yi gën a rëy yu yàlla di defal ay jaam ca la bokk borom boobu nag mu ne yow yonent yàlla bi xamal ne yaa ngi jëm ci jihaad ki nga ki la doy ca doy jullit ñi mooy yàlla kese mbokk jullit ñi keroog bañ leen waxee ne leen inna naasa qad jama'u lakum faxshawhum luñ ca teg mooy xasbuna allahu wa ni'mal wakil mi ngi noonu ay qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakil ca mbokk jullit koo dégg mu naan sëñ diw mi ma yaakaar islaam léeragul ci boppam képp koo gis boo lambi ndigg la fekk mu fees dell ay ndomb ki béjjén islaam léeragul ci boppam mbokk jullit yàlla lay doyloo xasbuna allahu wa ni'mal wakil damaa jëm ca guerre ba damaa jëm ca commerce ba damaa jëm ci tukki ba lépp loo xam ne yaa ngi cay jëm xasbuna allahu wa ni'mal wakil xasbuka wa man ittabaaka min almuminin mooy ki la doy doy ña nga xam ne ñoo la gëm te suñu borom mi ngi posé beneen question alaysa allahu bi kaafin abda moo ndax yàlla warul doy ab jaamam ah kay mi ngi noonu suñu borom woowal yonente yàlla bi mboolem yonent yi jiitu danaan yaa aadam yaa nuux yaa muusa yaa ibrahim ila axiri suñ yonent yàlla nag yàlla mosu ko woo ci turam heure bu koy woo da koy jox woo ci ay gratam mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam ey yow yonent bu yàlla bi xiirtalal julit ñi ci xeex mi ngi noonu xiirtal leen ci xeex nga xamal leen ni suñu amee ñaar fukk yoo xam ne dañoo muñ ci ñoom mbokk muñ mi ngi commencé def ndigalu yàlla bàyyi ay tereem waaye muñ it la yàllay dogal ci yow su amee ñaar fukk yu muñ ci ñoom buñ dajeeg ñaari téeméer yi fir dal leen dàq su amee téeméer bu muñ ci ñoom buñ dajeeg junni ci yéeféer dañ leen dàq lu waral loolu mooy parce que yéeféer yi comprendre ñu ca jullit ñi ñoom dañoo comprendre mbokk yéeféer luy jubluwaayam gañe ci kaw suuf ngir am dund àdduna gu gàtt gi amma jullit moom mi ngi jihaad fi sabilillah ngir ñaari mbir ihdal xusnayayni imma mu gañe ay noonam islam tasaaroo diine ji dem képp ku ci dugg mu jural koy tuyaaba wala imaam ñu rey ko buñ ko reyee mu nga jëm àjjana looloo tax rasul sallallahu alayhi wasallam keroog xare badr bi mu defee placement armée bi ba pare dane qumu ila jannati rabbikum arduha samawatu wal ard jóg leen jëm ci seen àjjanay boroom nga xam ne yaatuwaay ba yaatuwaay asamaan ak suuf la am na benn ca xale ya ka waroon ñu koy wax umayr ibnul hamam mu ne yow mi yàlla yónni kon tey bu yàlla dogaloon ma dee man àjjana lay dem directement mu ne ko waaw waaw fekk mi ngi yoroon benn sëqu tàndarma bëgg ko lekk mu ne ah lii di daf may sonal daal di koy sànni jël jaasim xotti mbuus bi mu koy dugal daa di attaqué yéeféer yi di rey di xeex di xeex ba keroog lañ ko rey radiyallahu anhu yaa ngi dégg radiyallahu anhu loolee benn misaal la ci misaal yi ñoo ko bari bokk na ci ndimbal boobu yàlla doon wax sànq ne yow yonent bi maa la dimbalee jullit ñi mbokk sahabatul kiram dara gënu leen woon a neex ci kaw suuf topp ci gannaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci toolu jihaad ba am ca benn ndaw boo xam ne ay yéen ñi nga xam ne xam ngeen médecin bappeeg ah caaxaan ko ci àddina yépp ki nga xam ne mooy Hanzala ibnu Amir rasul sallallahu alayhi wa sallam dane bi xare badar pare ñi ngi ko rey mu ne Hanzala day damaa gis malaaka yi di ko sang tey ngeen ne dem ngeen laaj soxnaam ba pare bi gaa yi delloo këram nekkate Hanzala bi ñuy woote badar dafa fekkoon mu am ab siit léegi mu toog rek waa ji naan e arme baa ngay départ mu génn rek jël armam rek départ ànd ak ñoom fekk mi nga waroon a sangu farata sangul farata mu gaa yi ndax lii yéemu leen un jeune am ab séet waaye dégg ay yàlla jihaad rek mu jóg dem ba keroog foofu lañ ko rey radiyallahu anhu lii mbokk mooy suñu borom yàlla li nga xam ne wax nañu ko ci mbooloo boobu nga xam ne ñu mel ne ñoom dootu ñu am ci kaw suuf ba ila yawmi diin mi ngi noonu Cheikh Ousmane
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا واتقوا الله إن الله غفور رحيم بارك الله فيكم الآن خفف الله عنكم léegi nag yàlla wayasal na ñeel leen wa alima anna fiikum daafa ndax xam na am na ci yéen ak lompañ fa in yakum minkum miatun saabira su amee ci yéen téeméer ñu muñ yaxlibu miatayni dañ mën a not ñaari téeméer wa in yakum minkum alf su amee ci yéen ab junni yaglibu alfayni bi iznillah daañ mën a not ñaari junni ci ndigalu yàlla wallahu maa sabirin yàlla mi ngi ànd ak ñiy muñ maa kaana li nabiyin an yakuna lahu asra ñee yeyul ci benn yonent mu koy ñeel ay ñu ñuy jàpp muy ay prisonnier xatta yusqina fi l ard ba baa muy doon kuy mokkal ci suuf ay gañe ay noonam turiduuna arada dunia yéen a ngi bëgg la ñuy gaaral ca àdduna wallahu yuridu al axira yàlla moom mi ngi bëgg al axira wallahu azizun hakim amma yàlla day ku not la ci kattanam ku xereñee jalla wa ala lawla kitaabun min allahi sabaqa bu dul woon ak téere bu bawoo ca yàlla bu jiitu woon ca mooy ay dogalam lamassakum fima axastum azabun azim kon doon na leen laal ci li nga xam ne yéena ko jël mbugal moo xam ne mu tar la fa kulu mimma ganimtum xalaalan tayiba lekk leen ci li nga xam ne gañu ngeen ko muy lu dagan ca tey waaye nag wattaqullah ragal leen yàlla inna allaha gafurun rahim yàlla day ku jéggalaate la te it yàlla kuy yërëmaate la mi ngi noonu mbokk bal islaam di doog a door suñu borom ne woon na jullit ñi su ngeen matee ñaar fukk amu leen droit daw ci kanamu ñaari téeméer ndax war ngeen leen a mën a gañe su ngeen dee téeméer amu leen droit ci kanamu junni ndax war ngeen leen a mën a gañe ndax li nekk ci seen ngëm ca nekkul ca ñoom ñu ngi noonu léegi nag dem naa ba xam ni ak lompañ dugg na ci yéen ndax avant xare Badr presque ay naafiq amul woon mais bi xare badr amee ba yonent bi am kàttan la ñu bëri ñëw dugg ci lislaam fekk seen ngëm dëgërul looloo tax am nay qiraa boo xam ne sax ñoom dañ naan an na fiikum duafa am na ci yéen ñu ay ñu lompañ borom bi subhanahu wa taala nag loolu mu wax dana ñëw ci yéen daafan mbokk lompañ googu day gën a yokk ci jullit ñi ba yonent bi alayhi salaam nee na buñ demee ba axiru zaman xeet yi daan jëkkante jullit ñi di leen seddoo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun daanaka ñu ngi dund lu mel noonu yeneen saxaaba yi na ko naan xanaa jamono boobu dañuy néew mu ne déedéet da ngeen di bari lool waaye dafay am feebar bu nekk ci yéen muy alwëhn ñu ne ko waaw lan mooy wëhn mu ne moom mooy bëgg àdduna ak ragal dee bëgg àdduna ak ragal dee loolu nag moo tax ba bi yeneen ci bi alayhi salaam di dund suñu borom mujj wàññi mbir mi te léegi su ngeen amee téeméer ngallaawaay bu leen daw ci kanamu ñaar téeméer ndax war ngeen leen a mën a gañe su ngeen amee junni bu leen daw ci kanamu ñaari junni ndax war ngeen leen a mën a gañe waaye mbokk jaaraama sahabatul kiram soo xoolee xeex yi ñu doon xeex gannaaw yeneen ci bi yépp néew na xeex boo xam ni seeni noon ñaari yoon rek lañ leen ëpp bal bokk na ci xeexi lislaam yi gën a màgg yi ñuy fàttaliku lu mel ne ay xasatu Yarmuk nga xam ne ñu ngi doon xeex ak romain yi jullit ñi keroog ñu ngi nekkoon vingt cinq mille jàkkaarloog cent mille romain kon bi ëpp nañ leen quatre fois bi mais dañ leen a dàq gañe leen loolu mbokk mi ngi noonu mooy sahabatul kiram borom boobu nag dogal na suñu yeneen alayhi salaatu wasalaam yor loolu donc ne it daan ci profité ci yéen ndaw ñi tamit ngallaawaay ndaw dafa war a doon munkat war a am kattan lu ngeen man ci def sport jullit yonent bi sam ne na yàlla bëgg na ku dëgër lu ngeen mën a def ci sport sport boo xam ne da ngeen ci jublu defar seen yaram yaram bu baax bokk na ci rek xatta nasaran li ñuy wax un esprit sain dans un corps sain mooy bal- balaa sa xalaata mën a jub gën a sell sa yaram day day dëgër day wér wo- loolee la nga ci jublu mi ngi noonu njëriñ nga am sawar ci woote ci lislaam sawar ci mën a taxaw di qiyaamul layli sawar ci man di naafile ila axiri bokkul ak nag sport yi nga xam ne tubaab moo ñu ko indil quatre-vingt-dix mille personnes di seetaan vingt-deux personnes loolu taxul ñuy wax loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla daa dogal gañe nañ waa Badr ñu yeew ci juróom-ñaar fukk rey nañ ci juróom-ñaar fukk yeew ci juróom-ñaar fukk yonent bi woo saxaaba yi ci réunion waaw ñii luñ leen di def luñ leen di def Aboubacar na ko ah man daal li ma xalaat suñuy mbokk lañu dañoo xamul te ñun dañoo soxla ay moyens nañ leen laaj alal ñu jox ñu alal ñu bàyyi leen ñu dem bu ko defee ñun ñu dimbali ko alal jooju mu ne waaw lu ngeen xalaat Omar jóg na ko xam nga lu ma xalaat tànnal képp ku ci bokk ci bani adi muy sama famille nga jox ma ma rendi leen nga tànn waa Tamim jox Abubakar mu rendi leen nga tànn waa bani Hashim yi jox leen adi ñu rendi leen ñii ñoo la yàgg xeex boo leen bàyyi dañ lay continuer xeex yonent bi alayhi salaam dugg génnaat saxaaba yi juyoo ñi ànd ak Aboubacar ñi ànd ak Omar bi mu génnee mu ne waaw nañ def rek li Aboubacar wax ca mooy nañ leen bàyyi ñu dem ca la waxoon ne Aboubacar yow day yàlla nga la may xol bi mu mayoon Ibrahim bi nga xamee ne nii moo doon ñaan yàlla naan yàlla sama xeet ku ci weddi it yàlla na nga ko jéggal ila axiri mu ne yow Omar yaa ngi yor jukkoy Nuux mi nga xam ne moo ne woon yàlla laa tazar alal ardi min alkafirina diyyaara yàlla yéefar yépp rey leen yaa ngi dégg loolu kon it ñaari xol la yu yàllay def ku am ñeewante ci nit ñi ngir yërëm leen loolu lu baax la waaye it ki dëgër ci diina yàlla ji fiiral diina yàlla ji bañ ko fontoo diina yàlla ji loolu it gis nañu lu baax la yeneen ci bi kon laaj leen ay jot ñu jot ñu dem waaye ca ngoon nga Omar ibnul Xattaab mooy nettali nee na damaa ñëw fekk yonent bi jooy Aboubacar di jooy ma ne ah inna lillahi inna ilayhi rajiun lu ngeen di jooy wax leen ma lu ngeen di jooy bu jaree jooy ma jooy bu bu ma mënta jooy jooy jooylu yaa ngi dégg ñu ne ko Omar ah Omar day jërëjëf yàlla day subhanahu wa taala wàcce na benn aaya aaya yooyu la nga proposé woon ndekkate loolu la ñu waroon a def te ko xam histoire Omar ibn Khattab xam ne yàlla yàgg naa farak moom mi ngi noonu te mooy ki chiit yi gën a bañ ci kaw suuf mi ngi noonu yàlla yàgg naa farak moom suñu borom nag ne leen yow yonent yàlla bi yellul woon ngay jël ay prisonniers te mokkalagoo ci kaw suuf gañe say noonu sa première guerre yi nga guerre ñi nga jàpp yépp da nga leen waroon a rey mi ngi noonu ñii nga àndal am na ñu ci bëgg alalu àdduna ca yàlla mu ne may allaaxira laa leen bëggal wax nañ ko tafsiru passé rek bi ko Omar tiimee di jooy mu ne ko Omar lan la mu ne ko situation bi ngay dund ak palais Faris bi palais Rome mu ne ko Omar xanaa xamu ne ñooñu yàlla da leen a sédd àdduna ñun yàlla tànnal ñu alaxira kon yàllaa ngi leen bëggal alaxira borom bi nag subhanahu wa taala ne leen xam leen ne mooy borom kàttan gi al aziz jël ngeen ay njot ak ñàkk jël ay njot su yàlla bëggee dimbali leen kenn mënu leen a gañe bu dul woon ak ne yàlla dogaloon ne ne ni lii danaa ko masa daganal ci yéen kon doon naa leen mbugal waaye fekk yàlla bokkoon na ci programme am xeetu yonent bi alayhi salaam dana leen daganal ñu jël ci seeni prisonniers lu ñuy mën a jotoo di ko lekk ci xeet yu jëkk yi amuñu ko woon mi ngi mel ne rek tey xale bi nga demoon Dakar sa doom jëndal ko banaana bi nga ko jëndalee banaana ñëw denc ko moom nga ko jëndal waaye nga dugg génn rek ñëw fekk na banaana bi di ko lekk xam nga kooku mën nga koo dal ci kawam lu tax nga koy jël te fekk ne moom nga ko jëndaloon rasul sallallahu alayhi wasallam it loolu la leen yàlla wax te mooy yonent bi da daan def ijtihaad maasum la woon mooy ku yàlla aaroon la du juum waaye du juum ba nuñ koy firee mooy fu mu juumee yàlla ñëw rectifier ko ci saasi amaa nag l'islam mi ngi commencé yàqu biñ demee ba jàpp ne sëriñ Ousmane de du juum kee moom jàpp ne ah man de sëñ mbeng bi ma topp du juum lum wax noonu la lum bind noonu la lum ñaan noonu la mbokk fa la islam commencé yàqu lu Aboubacar Omar amul saxaaba yi kenn amu ko ci a rasul sallallahu alayhi wa sallam kese moo amoon lépp lu mu wax wala lépp lu mu def imma noonu la yàlla saxal erreur la yàlla ñëw jubbanti ko moom rek moo ko amoon muy maasum borom boobu nag ne kon li ngeen gañ a lekk leen ca mu nekk lu dagan ci tey waaye nag ragal leen yàlla ca xam ne yàlla koy jéggale la yàlla koy yërëmaate la yàlla na yàlla jéggal ñu ci yërëm ñu naam bismillah
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير بارك الله فيكم يا أيها النبي أي ينتبي قل لمن في أيديكم من الأسرى waxal ci ñi nekk ci seeni loxo ci ay prisonniers ñu ñu jàpp in yaalamillahu fi qulubikum xayra su yàlla xamee ci seen xol yi aw yiw yu'tikum xayran mimma uxida minkum kon de dana leen jox lu gën ci liñ jële ci yéen wa yaxfir lakum te dana leen jéggal wallahu gafuru rahim yàlla day koy jéggalaate la koy yërëmaate la wa in yuridu xiyaanatak bu dee nag dañ laa bëgg a wor faqad xaanu allaha min qablu ñoom day nekkoon nañ di wor yàlla lu jiitu fa amkana minhum yàlla daa di not ci ñoom wallahu alimun hakim yàlla mooy aji xam aji xereñe ji inna alladina amanu wa haajaru wa jahadu ñooñu nga xam ne dañoo gëm gàddaay jihaad bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah ca seen alal ya ak seen bakkan ya ci yoonu yàlla day walladina aawaw wa nasaru ak ña nga xam ne ñoo leen fat ba pare wëlbatiku dimbili dimbali yonente bi ulaika baaduhum awliyaau baad ñooñu day lenn ca ñoom ñooy féeteeg ña ca des walladina amanu walam yuhaajiru ña nga xam ne dañoo gëm rekk nag ca gàddaayuñu maa lakum min walayatihim min cheyin du la ñeel ci ngeen di féetewoo ak ñoom ci dara xatta yuhaajiru ba baa ñuy gàddaay wa in istansarukum fi diin bu dee nag dañu ñëw sàkku ci yéen dimbal ci wàllu diine ji fa alaykum nasr su boobaa dana war ci yéen ngeen dimbali leen illa ala qawmin baynakum wa baynahum misaaq lu dul ci kaw xeet xeet boo xam ne seen diggante yéen jullit ñi ak ñoom ak kóllëre dafa dox wallahu bima taamaluuna basir amma yàlla li ngeen di jëf ku ko gis la jalla waala mi ngi noonu mbokk suñu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jàppee prisonnier yi ñu dajale leen ñuy juróom-ñaar fukk dañ leen a laaj lu ñu war a fay ngiree mën a jotu biñ leen laajee pour ñu jotu suñu boroom nag ne leen bis bu ngeen bu ma xamee ci seen xol yiw ay ngeen bàyyi kéeféer gi tuub dugg ci lislaam lépp lu ngeen joxe man yàlla danaa leen wuutalal lu ko gën bokk na ca ñooñu abbas ibnu abdul muttalib mi nga xam ni rakku papa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mi ngi noonu abi talib moo ko jur abi talib da ngay gis ni moom moo jur yonent bi salallahu alayhi wa sallam moo jur ki ni koy papa yonent bi salallahu sallam abdullah yonent bi alayhi salaam daal di koy woo ne ko hey gis nga abbas yow yaay fayal sa bopp yaay fayal waa bani hashim yi ñu fi jàpp ñëpp mu ne ko yow yàlla yu ne man ëwma dara mu ne ko ëwmoo dara bi ngay ñëw xare badr yaay ngi ànd ak sa soxna abu ummu fadl ba ci place sangam nga jël sa mbuusu xaalis yi suul ko fa ne ko mi ngi nii su ma nibbisee xayrul su ma dee ca xare ba nga taxawu ci sama njaboot mu ne ko ha maa ngi seede ne tey laa ilaha illallah muhammad rasulullah mooy tuub naa dugg ci lislaam waaye teewul il faut mu fay ndax dañ koo jàpp ci kéefër abbas boobu mooy nettali gannaaw ba mu duggee ci lislaam rafetal lislaamam yonent bi alayhi salaam dem nañ ñu ubbi dëkk bi ñuy tudde tey Bahrain ñu jëlee fa alal gi bëri jóor ko ci biir jàkka ji yonent bi alayhi salaam woo Abbas da ko Abbas kaay mu ñëw mu ne ko tibbal Abbas di tibb di sol ci mbëm mi di tibb di sol ci mbëm mi ba mbëm mi fees del mu bëgg a jóg mënut a jóg mu ne yonent bi alayhi salaam jàppale mu ma jóg mu ne ko déedéet xam kay li nga mën a yóbbu rek nga yóbbu. abbas amul pexe mu wàññi or bi daal di ëmb lu ci des di jóg jógi jëm këram yonent bi di ko xool di rey ndax bëgg gi mu bëgg alal sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko séddalee ba mu jeex dërëm yóbboo ko këram loolu abbas nee na man day la ma yàlla digoon gis naa ko ndax loolu yonent bi defal na ma ko te it may na ma ñaar fukki jaam yoo xam ne nii may na ma ko ci biir lislaam loolu mbokk muy yàlla lu mu digee def ko am deet ñu wane yi nag yéen ndaw ñi ngalawaay léeg-léeg yàlla nattoolo ci ay poste yàlla nattoolo ci ay xaalis yàlla nattoolo ci ay mbir boo demee ba xam ne lii ngërëmal yàlla nekku ci ak lu intérêt bari bari bàyyi ko ci yàlla tax wallahi amul benn jullit buy bàyyi dara ci yàlla tax lu dul yàlla dana ko wuutala lu ko gën balay dee wa man yattaqi llaha yajal lahu maxraja wa yarzuqu min haysu la yaxtasib bokk na ci ñooñu xatta omar ibnul as mi nga xam ni booba mi ngi denc taawu yonente bi alayhi salaam zeynab ndax yàlla aramalagul jullit ak yéefir daal di sëy bi ñu ko jàppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ko bàyyi mu nibbi bi mu nibbee mu daal di indi pour jotu benn chaîne chaîne boobu Khadija mi doon soxna yonent bi moo ko joxoon Zeynab keroog ba muy sëy Omar ibn al-As yónnee chaîne bi pour jotu ca la mu waroon a joxe bi ko yonent bi alayhi salaam gisee daa di ne saxaaba yi ah ndax du ngeen ma may chaîne gi ma delloo leen ko saxaaba yi na ko may nañ la loolu yonent bi alayhi salaam wax ne ko danaa la delloo sa njot yow waaye charte bi mooy boo demee delloo ma sama doom Zeynab mu ne ko baax na bi mu demee donte ne ay yéefir lañu woon mais ñoom dañu fonkoon seen kàddu naka mu yegg Makka waajal Zeynab Zeynab daa di dem fekke baayam mais li yàlla lay dogal Zeynab nekk nag papaam juróom benni at amul borom kër biñ demee ba fatxu Makka Omar ibnul As daal di tuub dugg ci lislaam yonent bi jël Zeynab delloo ko muy benn ngoog mu dugg ci lislaam rafetal lislaamam ba keroog ba ñuy ubbi Égypte moom mooy ki ubbi Égypte bàmmeelam ma nga fa ba tey mu nekk gouverneur ki gouverneur lislaam kon la yàlla waxoon ne su ma xamee ci yéen yiw jox leen lu gën la ma jël ci yéen loolu it aaya la boo xam ne de valable ci bépp jullit ba ila yumi diin képp koo xam ne intérêt ngi ni mën nga ci profito mais nga xam ne neexul yàlla nga bàyyi ko ci yàlla tax sa xel na dal wallahi yàlla dana la wutal loo xam ne moo ko gën borom bi nag bàyyi loolu daal di ni yow yonente bi suñu la bëggee wor xamal ni ñoom day ay yéeféer la ñu woon waroon nañu yàlla yàlla jàpp leen rey nañu seeni farandoo jàpp leen comme prisonnier ay yàlla nkeef bañeen aaya wa in yaudu naut buñ delluwaat yi ñu dellu siwaat gannaaw ba nag borom bi wëlbatu ko ci sahabatul kiram daa di ne inna alladina amanu wa haajaru ila axiri ñi nga xam ne day dañoo gëm jóge makka daa di gàddaay ànd ak yonent bi jihaad ci seen alal ak ci seen bakkan ñooñu mooy waa muhaajiroon ña nga xam ne ñoo leen teeru woon ubbil leen seen kër ya di waa ansoor dalal leen ba pare it takku ànd ak ñoom di jihaad ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom mu ne ñii day ñooy ay farandoo ci seen biir ñooy féetewoo ci seen biir ca mbokk sahabatul kiram rasul sallallahu alayhi wasallam lim daan def heure bu kenn gàddaayee mag soo ñëwee mu xool kenn ci waa madina na ko diw dénk naa la diw pour nga fat ko la bari ci ñoom dañoo séddoo ak ñoom seen lépp te mbokk diggante Makka ak Madina plus de quatre cent kilomètres la xoolal mel ni bu ñu wax rek nit ñi jóge woon Nouakchott masalan ca Mauritanie di gàddaay si ñëw Dakar bokk na ci masalan ku mel ne Saad ibnu Rabia dañ ko booleeg Abdourahman ibnu Awf bi mu ñëwee mu ne Abdourahman ibnu Awf yaakaar naa yéen ndaw ñi fekk woon xutba bi passé fàtteegu leen bokk na ci équipe fukki yi yonent bi na àjjana lañ jëm abdourahman ibnu awf mu ne ko abdourahman yàlla may na ma ñaari tool ñaari jardin ak ñaari soxna nañ dem kër ga soxna yi ku la ci neex ma fase ko nga takk ko jardin yi ñu dem jardin bu la neex nga féetewoo ko abdourahman ne ko yal na yàlla barkeel say soxna barkeel say jardin won ma rek fu marsa ba nekk ma dem daan fa sama doole gis ngeen sahabatul kiram ala kulli xaal noonu lañ jàppante woon bëggante woon borom bi nag subhanahu wa taala ni ñi nga xam ne nag dañ ñi gëm nañu rek ca gàddaay yooyu ca mbokk au début de l'islam suñu borom dafa tëraloon xat village yi arab yi tuub yépp mu ne ko tuub nañoo gàddaay si madina mu ne nag ñi nga xam ne dañu tuub nañu rek ca gàddaay yooyu ñu mel noonu amul leen ak féetewoo ba ngeen di féetewoo ak ñoom amma daal bu ñëwee am ku leen di noggatu ngir seen wàllu diine su boobaa moom am ngeen droit dim dimbali leen lu dul ñuy xeex ak ay yeneen i yéeféer yoo xam ne da ngeen siñanteeg ñoom ay pacte ne du ngeen xeex waaye bu dul loolu mën ngeen leen dimbali mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ne lépp lu ngeen di def man yàlla maa ngi jàkkaarloog moom mi ngi noonu Cheikh Ousmane
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
jazakallahu xayra suñu borom mu ne walladina kafaru baaduhum awliyaau baad yéefér yi de ñoom lenn ca ñoom ñooy féeteeg la ca des illa tafaluuhu takun fitnatun fi l ardi wa fasaadun kabir su ngeen deful loolu kon day dana nekk fitna ci kaw suuf ak yàq goo xam ne gu màgg lay doon walladina amanu wa haajaru wa jahadu fi sabilillah ñooñu nga xam ne dañoo gëm daal di gàddaay jihaad ci yoonu yàlla walladina aawaw wa nasaru ña nga xam ne it ñoo leen fat ci dimbali leen ulaika humul muminuuna xaqa ñooñu day ñooy ña gëm dëgg-dëgg lahum maxfiratun wa rizqun karim dana leen ñel njéggal ak wërsëg woo xam ne wu tedd la walladina amanu min baadu wa haajaru ña nga xam ne dañoo gàddaay ña nga xam ne dañoo gëm gannaaw loolu daal di gàddaay wa jahadu maakum walbatiku jihaad ànd ak yéen fa ulaika minkum ñoom it ci yéen lañ bokk wa ulul arxaami baaduhum awla bi baadin fi kitaabillah ña nga xam ne ñooy ña bokkoo nag lenn ca ñoom ñooy féete ña ca des ci téeréb yàlla bi inna allaha bi kulli shay'in alim yàlla di bépp mbir mooy ka nga xam mi ngi noonu mbokk suñu boroom dane ñi nga xam ni ay yéeféer lañu dey dañoo féetewoo ci seen biir loolu it mbokk tey jii boo xoolee adduna bi yaakaar naa ndaw ñi xam nañ lan mooy OTAN di lënkaloo googu nga xam ni Amérique ki France ki Angleterre lënkoo lañ ko le pacte de Varsovie ba féete fañeen ca côté Russie ak yooyu te muy yéefiri ñoom daje nañu bu dara desul lu dul xeex lislaam ñoom ñépp ay nekk benn bloc gis ngeen la xew Irak gis la xew feneen gis la xew feneen moo tax suñu borom ne yéen jullit ñi bu ngeen àndul fitna am fexe leen ànd ni yéefir yi ànd su dul loolu fitna ak yàq dana am donte ni mbokk aaya bi rasul sallallahu alayhi wa sallam it mas na koo wax ci wàllu sëy daana wax ni su dee def leen dikkal ki nga xam ni da ngeen gërëm diineem ca gërëm jukkoom da ngeen ko may soxna mu ne bu dee ni defu leen loolu fitna dana am ak yàq gu rëy ca mbokk bu dee ne rek waa ji ki tax ñu koy may mooy alal ki tax ñu koy may mooy fokk mu nekk sama mbokk ki tax ñu koy may mooy fokk nangam nangam xoolatuñu jukkoom xoolatuñu diineem loolu fitna lay jur rawatina suñ jamono tey jii mbokkoo bokk na loo xam ne nii lu tasaaroo lool mooy tas goo xam ne kenn mënu koo expliquer donte ne explication ba yi ci bëri lu yomb la mooy ba ñuy lal sëy bi ku góor ko xoolul woon ca soxna sa diine du ko ju rafet ku jigéen ko xoolul woon ca waaja diine du ko ju rafet yeneen considération lañu xooloon loola tax ñuy dund li ñuy dund ni tey borom bi nag wëlbatiku ni ñi nga xam ne ñoo gëme ca Makka gàddaay dem ca Madina jihaad ci yoonu yàlla waaye waa Madina yeneen fatoon ànd ak ñoom dimbali yeneen te bi yàlla mu ne ñoom ñooy julliti dëgg dëgg dëgg ulaayka humul muminuuna xaqa ñii ñooy julliti dëgg moo am nit ñu doy waar ñoo xam ni bëgguñu wax bëgguñu sax di wax seeni wax allahuma lu dul ni yàlla nattoo nañu léegi ñu tasaaru Sénégal am nañ benn rajo fii ci géejawaay di émettre vingt quatre sur vingt quatre 90 pour cent ci seen programme muy chiite yooyu ña ngi ko jëmale ci ngañ ñi sahabatul kiram kañ gën a bañ mooy aboubacar ak omar yaay afsa ak yaay aïcha sahaaba yi ñañ ci génne matul fukki nit ña ci des yépp ñu ne dañoo murtat waa mbokk suñu borom nee na lazina amanu wa haajaru wa jahadu wa lazina awa nasaru ulaika humul muminuuna xaqa yàlla mu ne ñii ñooy dëgg-dëgg ñi ñi gëm ndax gannaaw ba nit war naa wax leneen lu dul lii borom bi mu ne ñooñu mi ngi leen di waajal njéggal ak wërsëg wu tedd na am mbokk saxaaba yi du ñu woon ay malaaka looloo tax amoon na erreur yu doxoon seen diggante am na sax ñu si jotaane xeex waaye suñu borom mu ne dañ leen di jéggal suñu borom mu ne da leen di da leen da leen di jéggal waaw léegi nag ñun fan lañ fa féete ñun ñi nga xam ne bokkuñu ci ña gàddaay bokkuñu ci ña nga xamee ñun dañoo nekkoon Madina di leen fat mbokk loolu dellul ca sóoratul Hashr ah yaakaar naa am di moom lañ waaw moom lañ jàng tey léegi bi ñuy jiite timis suñu borom ma nga fay wax ñaari catégorie yi ca mooy ñi gàddaay yoon Makka fekk yonent bi waa Madina yëkka dalaloon ubbi leen seeni kër am na ñoom jihaad ñetteelu groupe ba lu ci yàlla wax walazina jaa'u min baadihim ñu ñëw ci seen gannaaw ca mooy depuis génération sahaaba yi jeex ba ila yawmi diin yaquluuna rabbana xfir lana wa li ixwanina allazina sabaquuna bil iman ñoom day fu ñu toll ñu ngi naan yàlla yàlla nag ñu jéggal jéggal suñu doomi ndey yi ñu jiitu ci ngëm ca bul def suñu xol yi benn noonu ñeel ña nga xam ne dañoo gëm looloo tax ba mbokk nit ñi ñett lañu mbooloom yonent bi alayhi salaam yawmal qiyaama ñett lañu almuhaajiruun mooy ñi gàddaayoon al ansar ña leen fatoon ñetteel ba mooy ñi ñëw topp seen gannaaw walazina tabauhum dellu ci saar bi nar a jàng ci kanam suratu tawba alsaabiqun al awalun min al muhajirin wal ansar walazina tabauhum bi ihsan képp ku bëgg sa diine yàlla nangu ko nga la waay bul tegg sa tànk fa ko sahaaba ya teg tegoon yàlla yàlla teg fa suñuy tànk ba ñu ànd ak ñoom tabbi àjjana mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne ñi nga xam ne day dañoo gàdday gannaaw loolu ay aaya yi am na jullit ñu bari bañ koy dégg ña nga woon ci seeni dëkk waaye biñ déggee aaya yi wàcc na lañu daal di takk seeni bagage fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent moom la borom bi di wax nag ne ñi nga xam ne gàddaay nañu gannaaw li nga xam ne wax naa ko it jihaad ànd ak yonent bi ñooñu day ñoog yi nay ànd ay benn lañ ci yéen borom bi nag tëje saar bi ci daa di folli benn atte bu amoon ci lislaam borom bi daana wax ci suratu nisa walazina aqadat aymanukum fa aatuhum nasibahum bu jëkk jullit ñi da ngay am sa doomu ndey jullit daa di koy xamal say mbokk kii dee def naa ko doomu ndey bis boo dee bu ñuy miraas li ñuy sédd say frère loolu lañ koy sédd amma nag lislaam bi mu demee ba lislaam am doole borom bi nag ne déedéet ulul arham ñi nga xam ne ñoo bokkoo ñooñu ñoo gën a yey ci seen biir looloo tax mbokkoog lislaam lu mu dëgër dëgër miiras moom bokku ci nit ki bu faatoo ay mbokkam ñoo koy donn doonte ne donn boobu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mbokk da ngay gis tey boo demoon suñu tribunaux yi na yàlla wax ne noonu la mbokk ya war a donnee ak la nga xamee ne ni moom la suñu loi yi tëral safaanoo na comme penku ak sowu am déet mi ngi noonu tey jii masalan rek benn waaye ngi ni bàyyiwul lu dul benn doom bu jigéen ak la nga xamee ne ni mooy benn frère am boo xam ne nii tey jii ñoo bokk ndey baay wala baay lan la lislaam wax foofu mooy doom bu jigéen ni moom genn wàllu alal gi genn wàll gi frère boo ko moom ndax tribunal yi xalaat nañ loolu lan la lislaam wax ci na bàyyi lii la war a am lii la yaay war a am ila axiri loolee kon mbokk di mbir moo xam ne wax nañ ko ci jataay yu paase mbokk képp koo xam ne sa xalaat yegg na ci mën a changer loolu commencer par le président par l'assemblée par cour suprême par lu mën a doon mbokk jullit yi ay jaar-jaar rek la ana ñi àndoon ak Senghor di tëral loi yooyu ñoom ñëpp tey ñi ngi ci biir suuf ou bien 99 pour cent ci ñoom donc ñun dañ fiy jógee ñu xam ne li yàlla tëral moo gën a jub leneen du dul loolu li yàlla tëral ci miraas wallahi moo gën a jub leneen ci dul loolu lu mën a tëral moo gën a jub leneen du dul loolu borom bi nee na ulul arham baaduhum awlaa bi baad donte ne it suñu borom ubbi ne benn bunt mooy wala fii dañ naan yàlla du tëj bunt tëj fenêtre yaa ngi dégg ubbi ne beneen beneen beneen fenêtre bokk te mooy ñooñu nga xam ne duñ la donn am nga droit defal leen test sama su ma dee kat sama xarit diw sama nijaay diw sama maam diw ñooñu bokkuñu ci ñuy donn ñooñu nañ ma leen joxal ci sama alal temps temps temps bu ñu xoolee paasewul ceeru alal ji loolu dañ koo war a wéyal avant ñuy miraas borom boobu nag mu ne xam leen ne seen borom yàlla mooy ki xam lépp lu mu mën a doon mbokk li mooy suratul anfal boo xam ne buñ koy jàng duñu man lu dul yéeg ak kersa digganteeg suñu borom ajjana yi sahaaba yi bëggoon moom la ñu bëgg te xoolal saxaaba yi coono bi ñu daj waaye nag mbokk yàlla subhanahu wa taala la muy fay ci jëf dana ko fay ci xol mooy bu dee yàlla xam ne ni boo fekke woon yonent bi taxaw taxaay ba saxaaba yi taxawoon nga boole ci bëgg yonent bi bëgg saxaabaam roy leen seen kemtalal kattan fu leen yàlla dugal ëllëg dugal leen fa yal na yàlla boole ñu ca boole ci bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain alhamdulilah xam naa lu jiitu rek mooy dimanche bii di ñëw fii ci jàkka ji gannaaw bañ julee tàkkusaan am na waxtaan bu fi oustaz Mor Kébé di def mi ngi koy jëmale ci yan pexe lañ mën a sukkandikoo ba sax ca la nga xam ne mooy yoonu njub mi ngi noonu ñu ngi ñaan mbokk yi ñu ñëw teewe ko di waxit ni dars ba ca daan topp di dars bulughul maram bi su conférence ma san am ci jàkka ji dañ koy bàyyi ba beneen kon mi ngi noonu insha allah non waaw waaleykum salaam wa rahmatullah ki jàpp ba pare laal soxna daa di foofu ak soxnaam ba laal kanamam ku mel noonu day jàppiwaat ku mel noonu day jàppiwaat mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw ndax abu sufiyaan dafa nàmpandoo ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loole di xawma ko ci histoire te it la am mooy su amoon yonent bi du takk doomam mi ngi noonu amul kenn koy nàmpandoon ba wël pare di wël bi tëkku di takk doomam mi ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam naam bismillah naam ah waaw waaw waaw dafa am Abu Sufyan ibnu Harb waaw naam ñaari Abu Sufyan lañu mais ki nga xam ne moom la yonent bi takkoon doomam mooy Abu Sufyan ibnu Harb bi nga xam ne moo nekkoon ci biir Banu Umayya nekkoon jiitu la nga xam ne mooy Makkatul Mukarram ah mooy bàyyi Muawiya ibnu Abu Sufyan mi ngi noonu kooku Abu Sufyan boobu la mais maa beneen Abu Sufyan bi kooku yonent bi takkul doomam naam bismillah naam waaw ah ndax bilaal mu ne ndax bilaal waaw wala ku li xaal loolu day ak tàmm la rek gu nit ñi tàmm mooy buñ demee ba liqaamkat bi ne la ilaha illallah ñépp ànd ak moom wax muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolee mbokk nekkul lu sax ci sunna fa borom xam-xam yi am ixtilaaf kay mooy ndax liqaamkat bi dañ koy topp comme ni ñuy toppee noddukat bi wala kenn du ko topp comme ni ñuy toppee noddukat bi amaa nag bu paree ñëpp àndandoo de sallallahu alayhi wa sallam loolee moom ak aada la gu nit ñi saxal rek wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw bu ñuy tafsir ñu wax histoire yonent yi waaw ala kulli xaal xam nga tafsir bi moom dañoo taamu di ci def deux pages yi ci temps bu ñuy tënk lool loolu moo tax ba des fois développer la ngay bëgg a développer yépp loolee gisuñu ci muy am kii ñaareel ba mooy histoire ci taarix bu dee ne ci wàllu yonent yi loolee moom da ngay gis ne li gën a am njëriñ ci jullit ñi mooy yonent bi ak saxaabam li ñu doon dund plutôt que la nga xam ne yeneen yonent yi dañ ko doon dund yonent yooyu suñu borom mu ne minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naxsus alayka am nañu ci yàlla wax seen histoire am nañu ci yàlla waxul seen histoire almuhim xëy na du tee am na ay conférence ak ay xutba yoo xam ne dana gën a mën a détail yooyu mais boo xoolee tafsir bi dañ koy tënk tënk suñu kemtaleen kattan moo tax xista yu bëri duñ ko ci mën a développé la chaque ne étape yi ñu jaar yëpp amu ci benn étape boo xam ne bu doon dañ koo jagleel ab conférence mën nañ caa wax lu jege deux heures de temps mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam waaw waaw
waaye bañ a yàq sàngara ci benn client boo xam ne da koy da koy fay xaalis bu bëri ñu woo ko benn jour ne ko ngay yàq sàngara marché kenn bañ ko yàq ne ko tey ko tey ndax lii lii la ko koy tere tubaab bi ne ko man xalaatuma ne woon dañ leen di tere yàq ko dañ leen di tere rek naan mais man pour man bu ma xamoon ne dañ leen di tere yàq ko du ma la jël loolu.
waaw bu ñu bàyyee tubaab bi rek la ay espagnol jël.
waaw espagnol yooyu tax na ba mënatul sax dootul sax daw ci tari bi di jàpp ay nit. dafa def rek ba contrat la am. mu am loo xam ne day am gën ñu ko tubaab yoo def te dootul daw ci tari bi loolu nekk na.
naam waaw waaw waaw yal na ko yàlla jéggal yàlla yërëm ko kooku muy wax ci fii la doon nekk ak ñun ci tafsir bi muy suñu mbokk daam ñaan nekkoon ndawal sunna boo xam ne ñi ko xam-xam nañ ko ala kulli xaal ku bëggoon sunna ku daan taxaw ci wàllu sunna gis ngeen misaal bi mu ci wax foog naa ñun ñëpp déggandoo nañ ko yal na yàlla jéggal ko ci yërëm ko naam bismillah mbokk waaw damay laaj benn question ci maanaam tafsir bi mooy comme jullit ñi bu ñuy colorité ak ak yéeféer ci wàllu défendre leen ndax maanaam ci défendre bañ a xeex rek lay yem wala léeg-léeg bu fekkee ni comme yéeféer bi war naa xeex ak yeneen dëkk jullit ñi mën nañ ñëw ànd ak ñoom dem xeex ak dëkk boobu bu coloré yooyu daal loolu laay laaj ndax kóllëre diggante jullit ñi ak yéefir yi day yegg ci wàllu xeex loole mbir la moo xam ne jullit du def loolu lépp loo xam ne dafay am ci wàllu jihaad wàllu xeex da ngay gis ne jullit du dem di ci ànd ak ay yéefir dem di xeex ci yeneen jullit moo am ji jihaad bu normal yéefir amul jihaad bu normal allahuma lu dul mooy dañoo amoon pacte jàmmoo buñ dox seen diggante am ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo jóge feneen ñëw di leen lor si ca jullit ñi xam ne ñii kët dañ leen a doon ñu leen tooñ su dee jàmmoo am na seen jàmmoo am na seen diggante gisuñu liy tere ñu xeex leen problème bi it moo di ne ndax jullit ñi ñoom it bu dee dañoo néew doole am jafe-jafe yu nekk seen biir comme li xewoon ci guerre de Golfe yi ñëpp xam ngeen ko ndax su boobaa ñoom am nañ droit woo ay yéeféer ñu dimbali leen loolee mbokk borom xam-xam yi am nañ ci ay jafe-jafe ku ci xam position Nasruddin Albani ak ay lam cay wax mbir la yoo xam ne ni daal ala kulli xaal yu compliqué la am na hadis yoo xam ne yonent bi alayhi salaam dafa doon wax naan ñun day la nasta'inu bil kaafir du ñu dimbali ko ay yéeféer fekk benn waaye dafa ñëwoon na ko xare Uhud mu ñëw na ko damay jihaat ak yow gannaaw ba nag danaa tuub mu ne ko déedéet ñun du ñu dimbali ko yéeféer looloo tax am ñoo xam ne dañuy gis ne déedéet ay jullit wuru ñoo woo ay yéeféer ñu leen di dimbali ndax ñoom seen i noonu lañu am na it ñoo xam ne dañoo jàpp ne bu dee jàmm kay daa dox seen diggante ay jihaat doxul seen diggante ca yow ñii nga xam ne ñoom ngay xeexal amoo droit amoo kàttan dal seen kaw su boobaa da ngay gis ne da nga am atte ci loolu donte ne yooyu ay masala la yoo xam ne nii masala la yu kawee la yoo xam ne nii jàpp ma daan dem ba jullit ñi yegg ca buñ ca yeggoo ñit am na yeneen borom xam-xam yoo xam ne nii xëy na ñoo koy gëstu ndax jamono bu nekk it léeg-léeg mu am cas yoo xam ni borom xam-xam yi dañ ko tuddee jurisprudence mooy li ñuy tuddee masail mursala yoo xam ne borom xam-xam yi ñuy daje xool lan la lislaam laaj ci suñu jamonoy tey bi lu ci mën a am ñu ngi ñaan yàlla dépp la ñu ngërëmam ci lépp loo xam ne ñoo ngi ciy dugg wala ñu koy bàyyi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain